Saxum Touba Saxum Touba Saxum Touba Saxum Touba mooy sunu net mooy lu ñu suivre moom la Baye Fall yëpp di suivre di ko bàyyi xel waaw barke borom Touba di ko bëggee bu baax ñi ngi ñaan nag mu yokk waaw yi gën a kawe si di gën a yaatu waaw barke borom Touba Saxum Touba yàgg leen te wér Saxum Touba. nañu bàyyi ko rëbi. ak ngénte yi ñuy def ak ngénte yi ko bàyyi ci yi ñuy def ko bàyyi. nañ ko bàyyi. ngénte ngénte du dara. ngénte du dara. aw tur rek la. aw tur rek la aw tur ak def lu ne. ak def rek. sunna rek. ak farata ji rek. lii su ngeen ko defee. nii su ngeen ko defee. sëy yi sëy yi dana dana yomb dana yomb dana yomb. sëy yi dana yomb. dana am barke itam. te dana am barke. bu ngeen ci defee ay puukare nag. bu ngeen ci defee ay puukare nag. du faj du faj dara. du faj dara. mën sa bopp gi nag léegi ci nga jublu. waaw ci laa nekk. di ko won nit ñi. muy lan. ci mooy nangoo bay tool yi. mooy li sëñ Tuubaa nekkoon. waaw jàpp sa njàmbur bay say tool bu baax a baax a baax di dimbali say bokk ak sa bopp. jërëjëf sa njaboot kon na kon ameel nañ la jaaraama ak wut dimbali ko ñetti façon indépendance yëpp ak wut si ndimbal mu dimbali ko alhamdulilah rabbil alamin kon ñetti façon yëpp <laughs> indépendance yi yaakaar naa bu ma jiitoo dama leen di geesu rek di leen geesu rek bu ma leen séenul taxaw nag leen bu ma leen séenut di taxaw nag rek mu seen seen gisuma leen mu dëpp laaj yi yéen bu ma leen it dinaa dëpp dajoo dajeeg yéen waaye dama leen di jël topp kon kon kon bu ma bu ma lay ma jël

sunu bokk yu jigéen yi noo ngi leen di dénk la sëriñ Touba dénkoon taalibeem ba soxna Penda Diop la mu ko jëkk a wax mooy mu taxoo muñ ak ragal yàlla di ko bàyyi xel ci lépp lu muy def muy lu nëbb wala fees moo tax mu ne ko alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fa yagfir laki ko cay tegal ne duumi ala tawbati bi ijtihaadi wala tamiili li siwa rashaadi segam ay rëcc rëcc mënta ñàkk ci jaam bi ndax sunu borom moonu mooñaale ak matadi moo tax sëriñ bi dénk ko muy tax taqootu fu mu toll tey farlu ci ay warteefam te lu dul ak njub bu mu ko def bu mu ko wax bu mu ko xalaat sax tegal ko ca ne duumi ala alxumuuli wa tasatturi wal taxfidi sawtaki dahran tushkari na nga sax ci muur say cër di suturaal say awra tey wax ndànk di wàcce sa kàddu sa giirug dund ndax jigéen kat lu dut xar kanamam ak tenqi loxoom awra la te loo feeñal ci say awra ñu di la bindal bàkkaar ba ci sol loo xam ne day fësal sa jëmm ni ko suñ borom subhanahu wa taala binde di nga ci am bàkkaarub sol gi am ci bàkkaarub jeexiital gi nga def ci xolub kila gis kon lu mat a moytu la sëriñ bi teg ca ne laa tanzuri ma dumti xayatan ila gayri alladi taxliluhu qad injala mu ne ko bul xool wala ngay am lanteek góor guddut sa borom kër ndax yàlla xaramal na ko sëriñ bi gannaaw ba mu ko moytuloo jëw rëy fen ngistal yéem jëf wanewu ak mer digal ko mu saxoo noppi tey muñ da ko caa tegal wala taruumi taata allahi bila taati zawjiki taqiyi dil ula mu ne ko bul sàkku topp yàlla ci lu du topp sa borom kër di wéy ci ndigalam di moytu ay tereem di dabu bànneexam fii li mu bëgg juuyoo wut ak li sunu borom bëgg sëriñ bi ne ko wal taalami anna jihaada niswati fi taati l azwaaji duna miryati mu ne ko nanga xam ne amul benn werante ne jigéen jihaadam mooy mu sax ci topp borom këram di dabu bànneexam ci li neex yàlla ndax fu borom ko borom këram gërëmee yàlla gërëm ko defal koy xéewal moo tax sëriñ bi ne ko wa xaytuma zawjun radiya an zawjati radiya anha rabbuha bi nicmatih sëriñ bi teg ca ne amma ida lam yarda anha abada fa laysa yarda allahu anha sarmada jigéen ji yàlla du ko gërëm mukk fi ak borom këram gërëmu ko kon bu mu xalaat mukk yàlla bég ci moom fi ak saxut ci bégal borom këram ci li neex yàlla sëriñ Tuuba mi ngi jeexale mi ngi jeexale ndénkaan loolu tëje ko ko ci faalami la yanju ahadun min aadabi allahi xata yatruka arbaata ashyaa alkadiba wal buxla wa su aw wanni xamal ne kenn du mucc ci mbugalum suñ borom subhaanahu wa taala muy góor di jigéen fii ak téqalikoo wut ak ñeent yëf yi wax lu du dëgg rëy nay ak ñaaw njott xaqi borom kër nag diis na lool ndax sallallahu alayhi wa sallam wax na ne bu sa yaramu borom kër feesoon dell ki góom fu ne di xel li dëtt mu digal la nga mar ko ba mu set du tax nga dab xàqam kon lu ngeen mën a defal seeni borom kër ci lu baax xeeb leen ko tey góorgóorlu lu ngeen man di wàññi yàq gi ci xew yi bu leen puukari wu tax a def lu ngeen mënut bu leen wone wu tax a def lu ngeen di rëccu ëllëg ragal ku ku la ŋàññ bu mu la tax a nangu ñu di lu dugal ci lu neexut yàlla dee leen yanu lu ngeen àttan tey doxe na ngeen mane Saxum Touba Saxum Touba Saxum Touba Saxum Touba moo sunu net mooy leen suivre moom la Baye Fall yëpp di suivre ko bàyyi xel waaw barke borom Touba di ko bëggee bu baax ñi ngi ñaan nag mu yokk waaw yi gën a kawe si di gën a yaatu waaw barke borom Touba saxub Touba saxub Touba saxub Touba yàgg leen